Dame un mot c'est bon euh, euh, madame le premier ministre euh. li le ciy dolliwaat tuuti vous li nga ñu de ñun ñu pour jébbal la sunuy fiche 2012 moom coalition bi a porté son excellence à la magistrature kon warul neu war a ci néew ci xare bi dolli ci euh, fi ñuy dëgmal dafa am yitte loolu pour ñun am yitte loolu pour président de la république te kon dañ ci war a dox suñu wàll ba mu mat sëkk sëkk sëkk ndax ku ne xam na ab réew dañ koy natt ci euh, qualité yi nga xam ne moom mooy ñi nekk ci hémicycle muy député yi waaye it dañ koy natt ci ñi nga xamante ni ñoo ànd ànd ak euh, njiit nekk kuréel di liggéey ak moom ba tax na tey jii li nga xamante ni son excellence jot na ko fi tàmbali ci liggéey mu nekk ay liggéey yu rafet mucc ayib defe naa ne tey jii dañ ko war a jàppale ba mu àggale ko àggale ko nag ci ni mu gën a rafetee àggale ko ci ni mu gën a set kon du ñu permettre kenn koo xam ne da ngay bëgg a ñëw tey jii xajamal euh, ndab li xajamal ñam li ñam loo xamante ne ndab loo xam ne ndabu Sénégal la ñam loo xam ne ñamu Sénégal la du ñu may kenn mu koy xajamal kon madame le premier ministre Macky 2012 na mu ko doon jàppee ak na mu ko doon defee tey la gën a laxasaayu ànd ak son excellence di ko gunge ci législative gunge nañ ko ci local yi gunge nañ ko ci législative yi dinañ ko gunge waat ci présidentielle bi ba nga xamante ne ndam li nga xamante ne moo jaadu mu am ko mu am ko ci saa su ne suñ ko jàppee ci àppu élection Macky 2012 du ci daw du ci randu comme niñ ko waxee nag ñi ngi tàllal ñëpp loxo ndax liggéey bi ñëpp ko bokk bu ñëpp àndee bokk def ci benn ndab li du def dul yokku te yokkute Sénégal daf ko teg Sénégal dafa defe naan ci ñun ñii la war a jaar donc madame le ministre tey moo taxoon ñu ànd tey jii daa dee andi presque dix mille parrainage bëgg ko jébbal pour li mooy sunu partition moom mooy sunu sunu sunu cër sunu contribution ci parrainage yi nga xamante ne lancé nañ ko pour élection juillet 2022 te buñ ko tolloo bu soobee yàlla dinañ ñëwaat fii dañ ko feetee dinañ ñëw wiiw ndaxte loolu rek moom mooy ñu ñor moom mooy li ñu ñulug jërëjëf jërëjëf na yegg si fii madame la coordinatrice de Macky 2012 soxna Fatoumata Gueye Diouf ñu ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal ñu xàmmee ci vraiment suñu ay àndandoo yu yàgg a yàgg a yàgg ñoom rek a toog fii ndax euh, ñu fàttali ne coalition Macky 2012 mooy coalition bi nga xam ne moo njëkk jàppale le candidat Macky Sall en 2012 tey bu ñu toogee ba doon 2022 dix ans après waaw ngeen nekk fi euh, vraiment dañu leen di féliciter sargal leen pour la loyauté et la fidélité dans le compagnonnage qui a duré une décennie. Dix ans de collaboration, euh, Taïngen été a mobilisé euh, pour euh, jox coalition coalition le président de la république ndam kon dama féliciter déjà pour cette longévité dans la politique yombut kon lu jara célébrer dix ans de coalition c'est déjà une grande réussite. Euh, seen 10 000 parrainage yi ngeen andi tay mu am composante yu bari yo xamné ne yii ñoo bokk ci Macky 2012 lolu aussi jar nañu koy wax ñom ñoo contribuer euh, nangu nañ ko avec beaucoup de plaisir ni ngeen ko waxé patch bu njëkk la xam nañ ne ngi toujours sur le terrain pour pouvoir continuer di waxtaan ak sénégalais yi ci bilan bi nga xamné suñu coalition am nañ ko à la tête de cette coalition le président Macky Sall ndax nak aussi euh, ku wax rek té objectivité tax la wax manam di wax rek té yalla tax secteur en une décennie Sénégal a changé de face lolu xamnañu ko ak secteur bo mëna jël xamnañ né aussi aussi bi na ndax daanu dajul di kon war sénégalais sans arrogance en toute simplicité déglu len aussi critique parce que nul n'est parfait Beaucoup de faits, nous it ñu jël suggestions Beaucoup de faits, bu président mis une majorité Inch'Allah, le 31 juillet 2022 suggestions aussi nous avons ko ci programme yi pour que Sénégal jëm kanam jàmm nag moom la ñuy ñaan parce que le président a réalisé muy Sénégal ñu xam contexte sous-régional bi nga xam ne ci la Sénégal di évoluer am na solo saa yu ñu yëkkatee des jëmale ko ci sénégalais yi ñu xam nous ñun jàmm ñu jig ndax Sénégal fune ñu ko fay tudd pour la qualité de sa démocratie pour la stabilité du pays kon ñu nit ci loolu euh, lañuy ñuy ak président gën cee ñaax sénégalais yi gën ci ñaax notre jeunesse saa yu njëkkatee kaddu aussi sensibiliser leen wax leen ne ce pays qui est un pays de paix moom ñoom war nañu ko préserver ba ñu dem ci ay élections incha allah ci jàmm ak salaam le meilleur gagne te am nañu yaakaar nag ne le meilleur sera Benno Bokk Yaakaar madame la coordonnatrice féliciter toutes les composantes voilà au nom du président de la république mi mhm. et puis encouragez pour que effectivement vraiment au soir du 31 juillet mhm. nous pour fêter une belle victoire on va prendre une photo ensemble Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Merci.